أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lanal huda abada sayidina muhammadi wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu luqad wajal hudakiran wa shakiran abad wajal kalaami rashida wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam faliyahab bilmustafa xayra shiyam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 jaarale ci ay tomb xam ne njàngale mu neex a dégg la woon te bari xam-xam lool Sëriñ Tuubaa dafa mas a woote ba ñu bari ñëw mu daal ne maa ngi leen di xamal ne liggéey mooy taxa jariñu ci àdduna waaye jaamu yàlla itam mooy taxa jariñu àllaaxira daal di misaal ne ñett ñi dañoo demoon ca jaba ab ja mooy marché daal ne ku njëkk kii moom dafa yor njëg bu demee dana jënd ab yóbbalam yóbbu këram ku ñaareel ki yorul njëg sax waaye am na pas-pas bu demee daan dooleem buñ ko fayee mu jënd ci ab yóbbal yóbbu këram daal ne ku ñetteel ki nag moom yorul njëg te fasut yéenee jaay dooleem waaw noom moom nu mu war a mën a def ba am yobal bu mu yóbbu këram kenn ci mag ñi ne ko ah foofu de xanaa moom sàcc rek fësës mu ne ko booba ja dañ koy wat kenn du fa mën a sàcc daal ne ku njëkk gi mooy ki nga xam ne ni dafa jàng ba am xam-xam sax ci liko yàlla digal di ci kem kemtulaayi kàttanam te bàyyi li ko yàlla tere bu ëllëgee suñu borom dana ko fay ay jëfam dollil ko ci yërmandeem mu dem àjjana dal ne ku ñaareel ke nag mooy ki nga xam ne amul njëg amul njëg sax naam waaye gis na sëriñ bu matub sëriñ amut xam-xam mu soriwut ci xam-xam waaye gis na sëriñ bu matub sëriñ mu jox ko boppam mu koy digal mooy def mu de ko tere muy bàyyi nee na bu ëllëgee sun borom dana ko fay ay jëfam dollil ko ci ma yërmandeem mm, taas ko ci barkeb sëriñ ba moo dem àjjana ku ñetteel ki nag mooy koo xam ne amul xam-xam te it àndut ak sëriñ bu matub sëriñ bu ëllëgee da mënta muusa ko ba dem àjjana ah mu dellu waxaat ne yett yii de awuma ko yéen ñi fi man nag képp ku ko gis fenn te mën koo am fenn nga dem wut ko fa ndax wuma ko ko bu njëkk bu mooy baax te dee solo ŋàññi ñetteel bu mooy tedd te nanguwoo liggéey ñetteel bu mooy faatu dem àjjana te nanguwoo jaamu yàlla kon nag njàngalem sëriñ Tuubaa moom yi waxtu wu nekk nañ ci delloo sunu sunu xel di ko gëstuwaat ndax ca loola la nekkoon de moom te it ca la nekkul woon ca la doon yare ca la doon soññee te it wax dëgg yàlla koo xam ne nii nag la ko ñëpp xamoon mooy lenn lam daan yar njabootu boppam nga ko yàlla joxoon mooy lenn loola moom la bind bàyyi fi képp ku koy waxal day xanaa nga koy nga koy nettalil loo jëlewul fenn waaye boo koy nettalil lu tege fenn moo xam lum bind la wala lum wax bàyyee ko mag ñi dara du ci génn alquran ak sunna dara du ci génn ak njub dara du ci génn lislaam moo tax nag waxtu nekk war nañ koy gëstu kon nañ nangoo doon nit ñu jub te nangoo am kilifa sëriñ bay jaxat yi daana wax ne ki nga xam ne dafa ñëw ci sëriñ bu matu sëriñ matub sëriñ mu jox ko boppam mi ngi mel ne ku dem cib gaar rek euh, amut saxaaru boppam mu jënd bee nekk saxaar ga bu ñëwee mu dugg koo xam ne am na saxaaru boppam nag moom ah mën naa dugg ci saxaaram taal daal di dem waaye xam naa euh, am sa saxaaru bopp moom dugg ci saxaaru jàmbur mën naa am moo ko gën a yomb moo tax sëñ bay jaxate ne ndeem am nga yow sa saxaarug bopp war cee téwee ndegam amoo nag joxe lus lëf te neggandi moo tax Sëriñ Tuubaa daana wax ne yowmal xiyaam da ñett ñii rek fa nekk muy ku rus dangay nekk ku rus wala nga ànd ak ku ñu rus mbaa nga rus nee te la ngay def bañ rus la ànd ak jàmbu suñ borom rus moo gën a yomb kon yàlla nañ